ngi lay fay Fatima Fatima Sow laa tudd man maa yor bu Fatima pour le développement social c'est un mouvement que je veux créer tout waaw dama nekkoon ci élection 2019 di jàppale nit ñi di ànd ak ñoom ñuy def ay action ma koy gis donc loolu moom ma poussé ba man tam ma bëgg def la même chose di def social jàppale nit ñi parce que après ça ñii dañ ma doon solliciter je sais ne man aussi de par mes propres moyens li ma yàlla dénk lu ndaw mën ci ngi APR au niveau des Parcelles CEDI waaw président en fait dama nekk parcelle parcelle yàgg torop di parcelle lu ci élection yi fu j'ai vu des gens qui ont vraiment le poussé pour ma parce que da ngay ànd nit muy def lu bax ngay top ci ginaaw mais à un certain moment aussi il faut savoir prendre un peu de recul yow tamit nga ni mu nit ñi di def lu bax aussi yow tam nga war ko def parce que lu bax ñepp ko bëgg donc loolu la loolu tax mouvement bi ñu créé ko man ak samay xarit ñu créé ko pour jàppale nit ñi pour aussi bon on sait jamais parce que dans la vie kenn amul ñun ñëpp amuñu dañuy def rek li ñu am ñu jàppale ci dem jàkk ji un petit mouvement des femmes nous avons am jox leen loolu daal suñu fi quoi pour le moment. Fatima pour le développement social pour le moment ci social rek lay dem. non c'est pour un début amna tous les partenaire à l'extérieur mais pour un début yëngoogul yëngu torop torop ta ñi ci début dal ñi ngi doog commencer nous avons des papiers, nous avons officialisé par rapport à ça. Nous avons fait des démarches Bien qu'on commence à faire des mais aussi nous avons fait des actes, nous avons des actes, nous avons fait des actes sociaux avons continué à faire des actes.

ñu ngi waajal lancement bi normalement si tout va bien ñu ngi ko bëgg def au mois de mars loolu la waajal lancé ko amna aussi euh, prévoir nañ dem ay def ay dons si ben ja ay jàkk yu nekk Parcelles Assainies amna aussi ben groupement de femmes bu nekk Parcelles assidi war nañ fa yobbu touti li ñi am voilà loolu dal pour le moment loolu la viser le temps que ñu xol dal en fait question pas man mënu di ci parce que question Macky Sall la concerné Mom ne sais a wax je day troisième mandat ou pas donc man pas. ci wax bien sûr <laughs> mais lepp dal ci la am dernier mot c'est bon c'est yor dernier mot bi waaw ñun Sénégal xam ñun Sénégal dimbalante